fayidi boñin sira wala walima ala kiti kiitinono mais gambiyan talen ɓeŋa lon ne ko eɓe do kuwo min nañi banku kan duniya be kan e gambiya diŋol i kumpa da wala sain. e kumpo banta gambiya bawo sayin ñooje soneyada fota ñooɗo soneyada gambe diŋol ye wula e do ko ge.

Eh, ah, jërëjëf Jali ah, ba tey rek si Gambian Talents TV ngeen nekk ah ñu ngi nii fii di ñu gërëm si jàppale bu ñu jàppale askan bi loolu moo ñu fi tax a jóg soo leen seetee ba léegi rek ñu ngi bëgg ngeen di ñu jàppale ah ngeen subscribe si suñ page bi su ko defee ngeen mën a am programmes yu mel nii. li ma leen ba tey mooy ñu fi am ay interns am fi am ay bagages yo xam ne ñu ko war jena jënd pour leen indil programmes yu mel nii ba tey tamit ñu ngi war a ah war jena jënd crédit war am internet bu strong yëpp rek si seen jàppale rek la tege parce que ñun dañ nekk am non profitable organisation government nekkuñ si on government nekkuñ si any other living because angale ñu ne he who pays the piper dictates the tune ah olof bi tamit ñu ne nit ko la jox ay moom moo laa wax li nga war a mm-hmm. lekk wala leneen leneen waa ñun nañ ñëwal fi askan bi nekkal fi askan bi moo tax rek seen subscription yi five dollar bi monthly rek wala tamit jàppale ngeen ñoo jàppale su dul loolu moom moo ñuy a yóbbu kanam moo na am benn green sàkku bu fa nekk ñu am love sign bu green bu fa nekk la yóbbu ay secure link boo xam ne rek ngeen ah, ñoo jàppale fii si Gambian Talents TV ñu mun a jàppale